asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy <clears throat> topp ci internet bi rawatina seen chaîne muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal <clears throat> ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daari ni di ko sàkkwaat ci yéen mbokk yi tey dañ leen indil gént nag nag xam ngeen ni bokk na ci. Euh, bay ma yi nga xam ne doomu aadama yi dañ koy yar ngir di ko jëfandikoo ci li gën a yaatu ci seenu dund nga xam ne bokk na ci bay ma yi eh, ëpp njëriñ ci nit bàyyi ko ci meewam wala ndawalam wala darbaak lépp ñu koy jëfandikoo ci tool yi kon bahima ju am njëriñ la rax ci dolli bokk na ci mbindeef yi nga xam ne <coughs> borom bi subhanahu wa taala tudd na leen ci alxuraan far sax mu am aw saar lëmb xam ne suratul baqara lañ koy lañ ko tudde muy nagawa ca waa bani israil te muy saar wu gën a gudd ci alxuraan kon loolu day tegtale rek am solo gi nag am solo ak njëriñ gi gim am njëriñ ngir doomu adama gént nag nag dina tekki ak ubbiku ak fàggu ak yokku dana tekki ak defaru dana tekki góor dana tekki jigéen dana tekki sax saytaane ci ag walla nga xam ne ñëpp ci firikat yi sax xam ne ko jàngate ci sooratu yusuf alayhi salaam ak digganteem ak boor nga xam ne moo géntoon nag wax ak la ca xew ba am ñu bari di koy firee am at kon gént nag lu yaatu la ci kem ki gént moo xam kuy waajal tukki la wala at mu yees bu ñuy dugg wala xam wala soxna wala kuy wut borom kër gént ko wala nag yu weex tàll wala nag yu duuf wala nag yu ràgg wala kuy ratti meewam nag wala nag mu ëmb wala nga gént nag yu lay dàq wala nga gént nag mbëkk wala sax ci ak wàll ñu la koy tegtale muy sarax wala ay nag yu ñuy tëral di ko rey muy tegtale aw xew wala ci ak wàll nag boo xam ne day tegtale kilifa gu ñu jekku wala sax ngay ñaan aajo ñu wan la ko wala nga gént ay nag wan la ginnaaw wala nga gént ay nag dëgmal la yépp yëpp ay tegtal la yoo xam ne bu ci nekk mën naa am firim boppam kon gént nag lu yaatu la masalan ku gent ay nag yu weex yu duuf yooyu day tekki ay ati naataange dana tekki xéewal dina tekki sax bu fekkee koo xam ne yu tur yàlla la yor ay rawaan dana koy misaale ci ak wàll ku gént njëlbeenu at nag yu suur dañ koy tektale at mu neex lay doon ci moom bu dee nag yu ràgg dana tekki bekkoor wala wërsëgu yi dellu ginnaaw wala sax ak wéridi kuy liggéey tur yàlla nag gént darat ci meewam nag dana màndargal tur wërsëg dana màndargal ijaaba ci koo xam ne mi ngi doon ñaan ajo bu dee nag koo xam ne day listixaar lu mel ne sey gént nagu ëmb loolu la ñuy tuddee takk falu maanaam boo ko takkee ci at mi nga gis ak yokkute bu gaaw a gaaw yu mel noonu nag day am waaye nag lu jafe la waaye lii bokk na ci màndargam dafa am ku ma masal laaj gént bu ko jaaxal lool nee na dafa gént aw nag wu ñuul wu ñu yeew fi barab mu bëgg a rëcc waaye munu ko ma ne ko ndax da am ay jafe-jafe ak sa soxna mu ne waaw ndax fii ne mi ngi kër yaayam ma ne ko bëgg naa ñëw de waaye dañu ko téye mu ne ma wax nga dëgg de ndax yaayam moo ko bañ loo ma ne ko nag noo mën a def ba jotaat ci jot ci ndax borom wërsëg la nga xam ne fekk boobu doonoon listixaar lu ko téye moo tax nag yu mel noonu it bokk na ci li muy misaale kon mbokk yi lii lañ leen indi loon tey jii xam naa incha allah bu subaak jàmm ñu eggale ko la ca des ndax gënt nag gën naa yaatu lii waaye ginnaaw dañ ko taamu émission bi mu bañ a gudd lool moo tax dañ ko yemale fii ba subaak jàmm incha allah ñu ñu yeggale yi nga xam ne des na ci ci ay tegtal ngir baaxaleen ko kon ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy dundal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.